asalaamaaleykum les jeune gis nga bu fekkee ne man sama jëflante ak yow tey jii mënu la jële benn point A yóbbu benn point Z kon jëflante boobu amul solo bu fekkee ne tey jii mënuma la fëkk ci situation bi nga nekk yoroo dërëm sa poche jànkonte tey bari na espoir amatul ma yëkkati ci situation boobu dawal sa bët ci kanam nga mën a xemmem benn situation boo xam ne suba mën na tax nga yeewu njël dem commencé di yëngatu ci loolu ba yàlla jox la ko kon amaluma la njariñ bu may wax ak yow damay tenir compte ci situation bi nga nekk gaa liggéey amul gaa Sénégal problème yi bari na tey jii bu ma lay wax épargne cent cinquante mille fekk sa salaire nekkul cinquante mille mbaa même soixante mille ah kañ yow mii lay waxal parce que dama bëgg la dëppoog sa borom la mu la wax fi ahsani taqwim gis nga àddina la jeune du li nga am li nga bëgg moo am solo lépp loo bëgg nga xëy ko di ci yëngatu loolu moo tax yàlla di yëkkati jant bi di ko wàcc nga dem ba wàcc suba nga commencé waat mel ni le mythe de Sisyphe lu nekk dafa am njëg boo bëggul mënoo dem bu fekkee ne da nga gàttañlu mënuma liggéey aw ma liggéey awma ma moyen aw ma financement aw ma feneen non foofu ngay toll foo taxawee benn projet bu war a jër dix million te yoroo lu dul dix mille francs nga ne damay xaar ba dix million sa beneen moroom à côté yorul sax dix mille francs yooyu nga yor jóg na dëgmal projet boobu yàlla defal ko ndam àddina noonu la demee donc du question xawma sa situation xam naa ko parce que da ma soxal xam naa li ngay dund xam naa jànkonte yi mais dama la bëgg a wax na la gis nga jànkonte yooyu du dara du dara loolu ngay vivre beneen jeune boo xam ne amul loolu vivre na lu ko gën a metti tey li nga reere mbaa li nga ndékkee amu ko biiram tey mu ngi wéet mais talul sax di jàmbat parce que ba loolu amee la jóg utal boppam parcours boo xam ne mu ngi jéem a fajtal loolu ca fa mu toll moom comme mu ngi ca loolu loolu fëkk na ko ba amatul beneen itte pour jàmbat mu ngay def di def ndànk-ndànk mel ni xorondom di dem di ñëw di dem di ñëw léegi nag jàmbaar nañu lëngoo noonu rek te yaakaar suñu borom daldi wuti ko nag dem ñafe ji loolu jaar naa la